multiple de fois on a montré à Macky ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko man te duma nañ ko saa buñ ko soxlaa duma dañ koy dajale defal ko bagage toujours waaye député wàllu ak yeewi yeewu leen ngir yàlla bu leen yàq seen bopp xale yi xale sénégalais yi vous ne voulez pas commencer la guerre avec cette jeunesse xale yu ndaw yi bu leen commencé guerre ak ñoom bëggu leen yàq seen avenir yàq seen avenir u famille bëggu leen def loolu imagine leen yen tey fi leen sénégalais yi teg ak li sénégalais yi daj pour ngeen falu man mii rek guddi yi ma nelawul te calculé wu ma kan mooy PDS kan mooy PS même fii ci Amérique on l'a fait ensemble am na sama benn nit ku baax ku ma woowoon mu ne ma ah PDS gaa yaa ngi war de gaa yaa ngi waxtaan ak Macky Sall waa PDS la kii ma wax loolu parce que PDS dafa am ñaari branche ci beneen branche yu PDS la bokk moo ma woo mu ne ma ñu ngi war de gaa yaa ngi war de ñu ngi waxtaan ak Macky Sall ci biir ma ne ko non ma ne ko loolu duma ci wax même donte gëm naa ne dëgg la mais duma ci wax en ce je pense que ñoom dina ñu delloo si waat seen xel mais ñi ànd ak Macky ak ñi ànd ak euh, euh, Khalifa ak ñi ànd ak Karim gi seetlu ngeen fan yii rek bi ñu tuddee Karim makki Sall wala Khalifa Sall makki Sall gis ngeen ñaata déteste maanaam gis ngeen nax kar bi dem ci xolu sénégalais yi envers ces personne gis nga sénégalais yi ni ñu bañee nit ñooñu yéen Ousmane Sonko foofu la leen rawee elan boobu la leen rawee parce qu'il est constant yéen mënu leen comprendre ne ku ànd ak Macky Sall rek sénégalais yi dañ lay bay maki Sall ku ànd moom rek sénégalais yi dañuy raxasu ci yow mënuloo nekk jaaykatu port sambour Sénégal waxatuma la président c'est fini pour toi c'est fini Macky il est dans des deals tey maa ngi seetaan suñu benn frère defe naa Abdourahmane Diouf la muy wax ci dialogue politique dialogue national loolu deal politique la war a tudd muy wax ñoom li ñu waxtaan ak Macky Sall dinaa ko corriger te docteur Abdourahmane Diouf borom xam-xam la waaye man tey dinaa ko jàngal tuuti xam-xam dinaa ko jàngal calcule wàññiwu ma ko nag ndax ku baax la nit la ko bëgg Sénégal wàññiwu ma ko je le diminue pas waaye dama bëgg a teg rek li mu wax ma am lu ma ko ci jàngal moom mu comprendre parce que yenn saa yi nga wax dara te yow sa bopp li ngay wax tu ne pas maîtrisé il n'a pas compris ce que Macky Sall leur a ah, may leen ma tuuti rek video bi dama ko doon déglu nii sànq may leen ma ñëw tegal leen mi ngi nii may gis mais parfois day planté wu voilà mu bëgg ma tegal leen li mu wax tuuti rek du lépp euh, ngeen déglu ko bismillah ok vidéo baa ngi nii gis day am problème dafay planté voilà day planté quoi waxuma Sénégal voilà du boobu bii la vidéo bi nanguwul euh, ñëw mais ko dinaa ko kii par contre APR mi ngi tas en ce moment APR li fa xew yéen ñëpp gis ngeen mi ngi tas léegi docteur Abdourahmane Diouf li muy wax dafa important dama ko buggoon teg vraiment. gàtt mooy. that's bi nanguwul ñëpp j'ai rien bi da bëggoon naa leen ko tegal su ma leen ko tegaloon dina facilité pour ma farampàcceel leen ko mais li ma bëgg a wax te gàttal ko mooy. Yewwi ak wàllu voilà ñëwaat na vidéo bi ñëw na voilà c'est venu déglu leen yi nga xam ne am na ci parrainage bi jëlee nañ parrainage citoyen bi de zéro virgule huit pour cent à pour cent yóbbu ko de zéro virgule six à zéro virgule pour cent maanaam tey koo xam ne am nga quarante deux mille parrains war nga mën a nekk candidat élection présidentielle ñun nag waa coalition Abdourahmane 2024 bañ ci commencé liggéey point bi mooy changement yi nga xam ne am na ci parrainage bi jëlee nañ parrainage citoyen bi de 0,8 pour cent à 1 pour cent yóbbu ko de 0,6 à 0,8 pour cent maanaam tey koo xam ne am nga 42 000 parrains war nga mën a nekk candidat élection présidentielle. ñun nag waa coalition Abdourahmane 2024 bañ ci commencé liggéey yàgg na que parrains yi nekk 40 mille 50 mille wala 100 000 ñun pare nañ gëm nañ ñu de loolu moo ñuy teree dem élection présidentielle loolu dama koy leeral pour ñu ñi ko. voilà. jëlee nañ ko de zéro virgule huit à un pour cent indi ko de zéro virgule huit à zéro virgule six pour cent léegi pour moom nee na c'est venu de soixante mille à quarante deux mille ok léegi docteur dafa am lu ma la bëgg a leeralal Sénégal dafa am lu tudd ay primo-votants maanaam xale yu bees ils sont au nombre de presque un million ok fi fichier fichier bi Macky Sall yoroon dis-toi que bu nekkee trois millions de votants léegi quatre millions de votants la donc yokkal ne vingt cinq pour cent yokku na ci bu dee nekk na quatre millions vingt cinq pour cent yokku na ci vingt cinq pour cent parce que cent pour cent mooy quatre million donc trois millions se traduit à soixante quinze pour cent et un million se traduit à vingt cinq pour cent donc boo leen ko jëlee de un pour cent à zéro virgule huit pour cent soi-disant soi-disant loolu vingt pour cent la docteur vingt pour cent ok vingt cinq pour cent moo yokku yokku ci électorat bi Macky Sall wàññil leen vingt pour cent xam nga loolu lan moo xew docteur donc au lieu de soixante mille maintenant ci auras besoin de soixante cinq mille donc Macky moo leen nax du yéen a ko kii de yéen a juboo ak moom de moom moo leen nax ci loolu parce que yéen bi ngeen koy ne wàññil pourcentage bi teniru leen compte de augmentation bi nga xam ne daf ciy augmenté wu aussi parce que bu dee soixante mille yi c'était euh, un pour cent ah léegi bu dee da nga war a am zéro virgule huit pour cent loolu di nga soxla soixante deux mille ba soixante cinq mille pour nga mën ko am donc loolu Macky moo leen nax pour ngeen comprendre loolu lii nag Euh, sa benn béykat moo koy wax je ne suis ni docteur ni agrégé en quoi que ce soit je suis seulement un sénégalais conscient pour won leen euh, xel yi ni mu takkee ci génération sénégalaise bu bees bi avec Ousmane Sonko maanaam ñun ñuy wax ñun ñëpp yeew yeewu ñëpp tout le monde sont éveillés ñëpp a yeewu maanaam bu ñu yeewoo bu ñu gisee lu xew Sénégal rek on dañuy ñëw jox leen ay cours pour ngeen xam loolu bu ñu ñëwee bu ñu dégloo li ngeen wax rek dañuy ñëw ñun ñu joxal ñu jox leen ci jàngat bi nga xam ne moom moo gën a leer donc loolu laa bëgg nga leeralal ko sénégalais yi docteur que li nga wax dangaa juum xam ku baax nga nag une personne bien intentionnée waaye dangaa juum pour nga xam ne Macky Sall moo leen nax yéen naxu leen parce que bu dee un pour cent la woon léegi mu yóbbu leen zéro virgule huit pour cent que électorat bi yokku na presque un million donc c'est Macky qui vous a trompé loolu benn débat la woon pour ma def ko entre parenthèse rek ñu romb ñu ñëw nag ci projet de loi yi nga xam ne Macky Sall daf ko jàllale assemblée nationale parce que ñun ñëpp ñu ngi yuuxu ci article quatre-vingt-sept voici l'intellect l'intelligent le mal intentionné Macky Sall Macky Sall saa bu bëggee dóor dafay yëkkati ñetti débat débat bi mu xam ne moo gën a bañ a plausible boobu lay ne gaayam yi jaay leen débat bi pour ñëpp yuuxu wax ci bi gën a ñàkk plausible bi nga xam ne moom xam na ne intéressé wu ko c'est pas plausible boobu lay ne mbokkam yi jóg leen yuuxu levez-vous et criez article quatre-vingt-sept article quatre-vingt-sept article quatre-vingt-sept léegi boo leen ko yuuxoo bu sénégalais yëpp concentré woo ci article quatre-vingt-sept man ma wax leen le vrai article que vous devez passer kooku mooy Macky leen ma est-ce que yéen a may dégg bu baax damay ñëw rek ngeen déglu ma tuuti Macky lii la indil ñëw leen na ah, ngeen déglu ma tuuti rek Macky nous a donné l'article quatre-vingt-sept sénégalais yëpp jóg di yuuxu article quatre vingt sept article quatre vingt sept Macky article bi ñu jógee ñun ñëpp di yuuxu Macky ne dellu na ginnaaw ci article quatre maanaam moom waxatul dara ci article quatre vingt sept voilà comme ko comme kontaanu leen dinaa bàyyi article quatre vingt duma ko laalaat voilà c'est fini donc on est d'accord voilà léegi juboo nañu yenn sénégalais yi juboo nañu mais en réalité Macky ciblam nekkul woon article quatre-vingt-sept toutefois que la clameur publique a fini à faire reculer le PDS et taxawu quand la modification de l' article quatre vingt sept yéen xam ngeen ne benn député Sénégal du nangu.